maxtaar mooy waxtu yàlla tànn nga war cee julli daruur yi mooy waxtaan wax waxtu woo xam ne dañ koo bàyyil ñi amoon ngant parce que ngant julli dafay am xale bi ma sœur bul fàtte abonné bul fàtte bës kolos bi. mooy tax ngeen mën di jot suñuy vidéo en temps réel. Wilane la voix des sages des sages. asalaatu imadu din julli moom dafa am solo màgg lool ba alayhi salaatu wa salaam bi ko yàlla joxee julli. ca makkatal mukarrama mooy bi mu amee quarante ans la ko yàlla jox waxyu yebal jibril bu fekk ko ci xaaru Hiraa xamal ko ne ko yonente nga sa borom jox na la mbir yi nuboo gi dugg na fekk moom quarante ans xam nga nuboo gi mooy lan ak diine ji gëm leen yàlla yàlla kenn la bu leen bokkaale yàlla lool la sallallahu di wax di woote di ko woote fukki moo tax ku ku fonkul message xamoo diine joxe message bi rek gëm leen yàlla bàyyi bokkaale fukki at quarante ans boo ci dolli dix ans du nekk cinquante ans sang bi am cinquante ans yàlla rañaanal ko isra wal mi'raj jibril jël si ko ànd ak malaaka ya jóge ci buntu kaaba ga dem baytul maqdis dem ca yàlla yàlla jox ko julli ak la ca xew su ma ko doon wax suma ma leen jëm ba mu ko joxee julli juróom fukk la ñuy wàññi ba ci juróom waaye juróom yu jur juróom fukk koy neex na saa boo julee benn julli am fukki julli ba ko joxee julli mu ñëw màkk xam nga lu njëkk a julli tisbaar waaw te nit ñaa ngi foog ne Moustapha suba la njëkk a julli cëpp màkk waaye xamagul diine bi naka la ñuy jullee tisbaar jotee jibril na cëpp jàpp mu jàpp mu kàbbar mu kàbbar jibril na ko ah tisbaar nii lañ koy jullee dem tàkkusaan ñëw jibril ñëw jàpp mu jàpp mu julli mu julli haka ah, mu dem timis ñëw jibril jaar foofu géey ñëw mu jaar fa julli suba ñëw moom la mujj a julli mu jàngal ko ko man mu dem jool màkk ne sallu kama raaytumuni usalli xusu anni manasikakum moo tedd kon tisbaar la jëkk julli moo tax ci fiq bala ma sori foofu moo waa daara jiyéene ko moom ki yor borob julli ci naka yor na borob julli waaye xamul julli gi ñaata la ba mu nekkee waxambaane wala ba mu nekkee jàng wala tukkee daawul julli nangam nangam léegi nag mu bëgg a julli normal xam nga lu ko fiqi jàngal kooku day saa bu jullee benn julli rek fay benn dem yoonam waaye tisbaar ngay jëkk a fay soo jullee tisbaar pare fay benn tisbaar dem sa yoon takkusaan nga julli takkusaan fay benn di ko def di ko def ba fiq ne saa la sa xel maayee ne mat na rek fa la yem kon xel am na solo foofu de waaye ki yor borom julli nag ci naka Ibulaay Fall am na bërëb julli tisbaar takkusaan timis gee am na ci benn buum julliwul te xamul ban la fiq nee na fayal tisbaar fay takkusaan fay timis fay gee mu ngi ci biir waaye fiq nee na kay werante tisbaar takkusaan am na buum ci julli waaye xawma ban la ñu ngi su ah su day fay tisbaar fay takkusaan fayaat tisbaar loolu xel nangu ko de fi xëy noonu fay tisbaar fay takkusaan fay at tisbaar su ah su zuuru asul soodu bu rëy bu ko defee noonu la ñuy fayee julli kon ku ci am borob julli bu bari boo xamut wala xam nga ni mu nii amaa na ki yor borob julli boo xamante ne bii matul juróomi julli misaal tisbaar jot na te moom julleegul suba day liqaam fay suba su ko julli tisbaar lu ko mooy du ba fay lu ko mooy du foqaa dañ ci wuti ñaari wuti dañ ne ku wéru bërëb julli feek matul ñeenti julli da nga koy toftale wala mu yàqu. waaye ñuy wax nag ni da yor boolu tàkkusaan léegi timis gi dugg si na il faut lekk nga julli timis parce que dafa gàtt nga doog a fay tàkkusaan ñooñu loo ciy loo ciy leeral. ñooñu bu ma leeralee moxtaaram julli ñu xam ne timis a gën a gudd ci julli yi. déedéet kii timis a gën a gudd julli gi gën a gàtt moo julli suba duguj moom daa gàtt duguj moom danaa ko leeral incha allah su ma ko fàttee nga fàttali ma bu ko defee kon ma gën a leeral li nga wax timis jot na julli woo tàkkusaan boo kàbbaroon timis yàqu na julli nga timis ba sëlmal yàqu na foog nga liqaam fay tàkkusaan su ko liqaam fay timis waxtu yi passé wul woo tisbaar julli woo tàkkusaan boo kàbbari timis yàqu na boo sëlmal timis yàqu na foog nga liqaam fay tisbaar liqaam fay tàkkusaan su ko liqaam julli timis julli woo suba tisbaar tàkkusaan bëgg julli timis du wér nga fay suba tisbaar tàkkusaan su ko julli timis dañ na nag fuqaa ñoom bu ma tee ñeenti julli moom boo jëkkee boo mujjee yow la neex yëpp a wér waaw waaw am ñu ne déedéet foog mot juróomi julli lépp maliki yi ñoo ci wuti ñoomu neen bu ma tee juróomi julli foo commencé yow la neex moo tax boo doon ilimaan tey jiite mbooloo mi gée ba nga kàbbare nga fàttaliku ne yow kat julli woo timis sa julli yàqu na waaye julli gaay yàqu na yàqu dafa am ci fiq yoo xam ne bu la sa jullee yàqu yàqaale ko gars yi am na boo xam sa jullee moo yàqu par exemple ki njàppam toj mu teel a wutal moom rek la julleem yàqu waaw seen julli yàqul waaye bu njàppam tojee mu continuer ñoom ñëpp suñu julli yàqul ka kif kabar fàttali ko julli gu passé te matu julli julleem yàqu na julli gaa yi yàqu na ay tënki fasale yu bari ci fiq la beneen bi mooy julli dafa am am daruri yu maxtaar mooy waxtu yàlla tànn nga war cee julli daruri yi mooy waxtaan wax waxtu woo xam ne dañ koo bàyyil ñi amoon ngant parce que ngant julli dafay am xale bi ma dem di sangu yéex a pare waxtu yu passé daa am atte ki feebaroon di karang-karang ba xaw a tane dem di waajal julli ñoo fekk waxtu yu passé jigéen ji ngantam jeex ci gësin walla mbërëg muy muy waaj pour julli ba yéexee waxtu yooyu ay ngant la ma leeral foofu maxtaar ci julli suba julli suba moo gën a gàtt ci julli waaye naa jëkk tisbaar tisbaar bu jant bi dee ba tiim sa bopp bi loolu bu amee ci fiq boo xoolee big sa boo ko sampoon ker gi day day ne ci ron big bi dara du génn sa ker da ronu leen lu nekk keram da koy ronu mooy waxtu istiwa waxtu woowu naafile dagan na ci waaye julli ci tisbaar daganut daganu ci bu jant bi ne kay commencé dem sekker gi commencé génn ah tisbaar dugg na moo tax ñuy julli une heure et demie na de wéer na kay bu jant bi commencé kër gi jant bi demee sekker gi commencé génn maxtaar ma commencé na tisbaar dugg na tisbaar ba boo nattee sa takk bi mu tolloo yow sa takk ndeer tolloo yow benn yoon fa la maxtaaram tisbaar yem dara lu tisbaar commencé foofu ba jant bi so moo tax tant que jant bi sowul doo damay fay tisbaar nga ne damay julli tisbaar bi nga amee benn takk ndeer maxtaaram tàkkusaan commencé na di dem ba jant bi xong maxtaar ma fa la dërër yu tàkkusaan bi jënt bi xong la commencé di dem ba jant bi so kon tisbaar daa wan maxtaaram tàkkusaan ak dërër yu kon li ma bëgg a jàngale ci fiq tisbaar tàkkusaan tant que jant bi sowul ba ñu noddal timis baal xel ma doon damay fay da ci waxtu waaye bu jant bi soo nga soo beneen bi mooy takkusaan ah, leeral na takkusaan timis mu des timis timis bu jant bi duggee saabu bu jant bi duggee ba gisatoo dara jant bi timis duggul bala fekkee nga jàpp nga kàbbar sëlmal maxtaar ma jeex na da nga doon tiim tiim nga kàbbar sëlmal maxtaar ma jeex na dara ruuj mooy dem di dem ba salaatu xëri mi ne na mi nga dégg suba mu wax naan allahu akbar ji fa la commencé salaamaaleykum ji fa la waxtu jeex donc gàttal nañ ko lool. ëpp na ko suñ timis tey bañ ko julee léegi yàgg na xam kañ lay jeex dara yu timis tey jii ma ngay jeex salaatu xëy mi ne bi da ngay dégg bu fa jaree ci suba. julli gee bi jant bi sooy xam day bàyyi ay xong-xong yi ñu ko safax ci loolu arab yi xong-xong yooyu saa bu demee ba jeex gee dugg na moo tax ci fiq soo boolee timis ak gee julli. doo mën a julli safa ak witar ndax da ngaa julli gee te waxtu jotagul timis bi muy jot gee jotul di tisbaar bi muy jot tàkkusaan jotul am na jamu taqlim am jamu taqir yëpp fiq maye na ko dinaa leeral incha allah waaye kon bi jant bi soyee ba jeex takk nga jàpp kabar sëlmal wala nga tiim kabar sëlmal maxtaar ma jeex na ci timis daroor yi moo dem ba fajar suba ëllëg tànk suba jotul rek ci ëllëg ca fajar je yaa ngi ci daruri yi doone damay fay da ngay joxal ci waxtu beneen bi mooy bi jant bi sooy yu xong yi mu fi bawoon muy sabax yi saa bu demee ba jeex gee dugg na gee dugg na maxtaaram gee kañ lay commencé kañ lay jeex mu ngi jeex boo xaajee guddi gi ñetti xaaj benn xaaj bu bu jàllee maxtaar ma jeex na daroor yi fa la commencé fa la commencé ba salaatu xërib na bi yi ngay dégg gee jeex kon timis daa war na maxtaram gee ak daroor yi li ma bëgg a jàngale mooy timis ak gee tànk fajar xarut yaa ngi ca waxtoo da ngay jooxoon waaye doon damay fay waaye nag mbokk yi day fonk julli ci waxtu waalam bi anna afdala taati salaatuna fi awalil awqaati topp yàlla bi gën mooy julli ci njëlbéen waxtu moo tax ci fiq ki dem jàkka ja mën naa xaar mbooloo ba yéex a julli waaye bu mu génne maxtaar ki ne ci place bi xaar mbooloo place muy jàkk muy juma muy fu mën nekk fu nit ñi daje mën naa yéex a julli ngir xaar mbooloo waaye bu maxtaar jeex bu tàngoor bi taree ñool màkk ne abdulu fil xari mu ne bu tàngoor bi taree na ngeen seetlu ndax tàngoor wu tar ci upp ak jéexee ma la bokk fiq may na kon bu tàngoor ñëwee nga yéex a julli waaye bul génn maxtaar ngay xaar mbooloo kasaalika mais xaaroo kenn maxtaar jot na jullil julli ci daal benn waxtu day may ngër mandil yàlla julli yërmande yàlla julli ca mu ak waxtu day jur njëgal ak yàlla ku julli ci heure def nga lu te njool makka ne ne ku dekki ëllëg yowmal xiyaam yàlla xool say bagage nga leb borub julli ba beneen julli fet ko fa am nga bàkkaar bu rëy tisbaar jole ba tàkkusaan fekk la fa tàkkusaan ba timis timis ba gee bàkkaar bu rëy a xoolal nu ni ñu sàgganee julli julli googu nag seex bi bala may leeral dabe julli ak mbooloo julli am na fukki farata ak ñett am ñu ne fukk ak ñeent am ñu ne fukk ak am ñu ne fukk ak juróom benn su ma ko jàngal ci dars bi ma leen xale yi ngeen bañ a juum bu leen weddi benn mësëb ki wax fukk ak ñett wax dëgg ka wax fukk ak ñeent benn rek ka wax fukk ak juróom da ñaar ka wax fukk ak juróom benn ñett waaye li ñu wax na dëgg ay wuute la ba ci jëkk farata su ma ko waxee ci julli mooy loo xam ne lii boo amul a julli gi kon jar naa xam farata moom ba amul julli gi yàqu na moo ci njëkk yéene jooju nag yéen yi mu nekk ñaari yéene kon kile fukk ak ñett dana wax fukk ak ñeent mu fekkee ndax ki julli moom dong day yéene julli moom dong kàbbar yéene julli lay ci boo dee ilimaan ngay jiite julli juróom da ngay fas yéene rek kàbbar waaye nag ilimaan buy jiite jumaa day yéene julli ak jiite mbooloo mi su ko deful seen jumaa yàqu moo tax boo dégg ñu fa iliman te jàngul fiq damay tiit est-ce que dina ko xam iliman bu dee julli jumaa day yéene jiite julli ak jiite mbooloo mi la ko mooy seen julli du wér muy benn julli xare toolu xare bi tàkk na julli jot imam buy jiite dinaa leeral julli xare incha allah parce que am na xare ci dëkk am na xare ci àll yëpp ci fiq da koy jàngale imam buy buy jiite julli ci xare day fas yéene jiite mi des na beneen nag salatul jam'i danga ngaa bëgg bool si ba takkusaan bëgg bool timis ak dee foog nga yéene jiite mboolem ñett a ngi noonu de julli juma julli boole julli ak julli xare xam nga ban moo ko ñeenteel salatul mustaxlaf boobu gën a garaaw imam day julli rek ngeen ne ci ginnaawam di julli mu dem baag mu am ngant dafa bori ñàppam moo toj nanga ma ko gaar nanga ma ko gaar mu xëcc la wuutal la ba ngay kabar loo fas yéene ci iliman dangay ngay fasaad yéene doon iliman loo ko mooy julli gaa yàqu moo tax bari na ku ñuy ku ñuy wóotal ci mu julli du ñu am dara iliman ju bees man damay tiit julli ku ñu wóotal militaire yi damay tiit ñeenti iliman day yéene wax naa julli xare léegi julli xare lu garaaw la am na xare àll am na xare dëkk xare àll mooy ñu dem ci tooli xare yi di xare la xare ba tar tar lu mu tar tar doguma la sax waaye foofu même ci gis-gis eh, da koo wane nga jël chauffeur bi ne ko Tamba lañ jëm ñaari chauffeur ànd ci oto bi chauffeur bi dem ba Kaolack mu wàcc jox beneen chauffeur bi est-ce que kooku day ñëw rek accéléré dem wala day xool da oto baa ngi premier wala mu ngi deuxième wala mu ngi troisième mu dëggal li nga wax foog mu xool loolu te it mën naa xool essence xool gasoil man hmm. naa xool ndax am na pièce mais boobu pièce bu gën a gars yi jàpp ko kon foog mu xool moo tax sax su mu saxla lu garaaw ba la ilimaan nga soppi sa yéene kon ilimaan nañ bàyyi xel ñeenti yéene julli jumaam julli xare julli ku ñu wutal ak ku bëgg a boole ñaari julli bu dee julli xare ni ma ko jàngalee léegi ci fiq xare bi tar na fiq ne ci njol màkk lu xare bi tar tar bu julli jot nañ julli te nañ julli julli mbooloo kon islam bëgg na julli mbooloo islam bëgg na julli ci waxtu nun nag suñuy ngant nelaw ak naan ataayaak damay tukkeeg sangoogumaak lu sariya xamu ko imam bu jullee mbooloo ci fiq ci toolu xare ñu la koy jullee xam nga ki ne ci toolu xar bi tukki day wàññi julli timis kenn du ko wàññi suba kenn du ko wàññi tiba tàkkusaan gee ngay julli bu ne ñaar rakka nga julli sëlmal imaam bu li buñ ko li mu kabar mu amee benn rakka deuxième rakka bu jógee taxaw fa lay taxaw gaa yi mottali seen julli ba sëlmal mu taxaw rek ñu dem taxaw fee jàkk jaamaarloo ñële ña jaamaarloo ñële ña fa nekkoon ñëw ànd ak ilimaan mu jiite leen benn rakka boobu taaya sëlmal ñoom ñu mottali taaya sëlmal maanaam bu doon deux cent personnes cent yi lay àndal benn rakka deuxième rakka mu taxawee gaa yi mottali seen julli ba sëlmal mu taxaw ne tekk rek bu gaa yi demee taxaw yeneen cent yooyu ñëw mu ànd ak ñoom benn rakka taaya sëlmal ñu mottali bu doon timis boo amee ñoom ñaari rakka troisième rakka bu jógee taxaw gaa yi mottali seen troisième rakka sëlmal dem taxaw fële ñee ñëw mu ànd ak ñoom benn rakka taaye sëlmal ñu am benn seen deuxième rakka jàng fàtteeg saar biral ko taaye jógaat andi benn rakka fàtteeg saar biral ko taaye sëlmal foofu sax am na fasale fiq fi Saafi wax yu bari ak Malick waaye na jàngale Malick bàyyi Saafi ba ba ca kanamati waaye daal nii lañ koy defee eh, bu dee julli suba boo amee benn rakka day jóg taxaw rek comme julli ñeenti rakka bu taxawee ci ñaari rakka bi gaa yi dem xaar ñi ñu ak moom benn rakka bu sëlmalee gaa yi mottali su fekkoon ci dëkk bi du demee noonu parce que des fois lekk léeg xare takk ci biir dëkk bi génn ñu dëkk bi duñ mën a wàññi julli nu ñuy def bu julli jotee ilimaan dañ koy noddal li xaamal ko bu dee tisbaar wala tàkkusaan wala gee amee ñaari rakka ba taxaw ci troisième rakkaam fa taxaw gaa yi indi troisième rakka indi quatrième rakka taayal dem xaar ñee ànd ak ñoom troisième quatrième taaya sëlmal gaa yi mottali bu dee timis nañ ko defoon fee fii suba it noonu la kon xare ci àll ak xare ci dëkk nii lañ koy jullee te benn bokku ci wax naa leen ne yéene farata ci julli muy benn kàbbaru armal wax naa ne yéene bi ñaar la yéene pour julli rek farata la bu dee ku ne ci ginnaaw imam yéene roy ci ilimaan muy ñaar kabaru armal farata la kabaru armal allahu akbar na boo ne allahu jalaalu allahu samadu loo mën a wax wérut moo tax fuqaa dañ ci werante rek mu nekk baatu allahu akbar ci làkku arab ñu ne waaw ki déggul arab tuubeen la nu muy def fuqaa ñu kooku du kabar ci benn lakk munu allahu akbar ci loxol arab yi day taxaw yéene rek commencé julli kabarul li mu ko ko yéene rek mu dem wér am yeneen fuqaa yi ne déedéet xam nga nu muy def da koy lakk ci làkk ba mu dégg dégg nga làkk ko ci allahu akbar loolu arabi leneen loo def wérul ñi ne bu ko mënul nag da koy yéene ci xolam wér na ñi ne déedéet bu ko mënul na ko làkk ci làkkam kon lakk ko ci làkk wér na ko wér na wax ko ci loxol arabi moo gën lépp far mooy allahu akbar bu farata la boo koy wax da ngay taxaw soo ko waxan toog su julli bu fekkee da nga mën a taxaw jàng fatiha farata la taxawaay jàng fatiha farata la xanaa am nga juróom di rukoo sëgg jàpp ci say oom farata la ne boo ci jàppee da ubbi sa loxo yi nii loxo bu booloo du baax da koy ubbi ba mu ubbeeku nga boo rukoo sa gannaaw gi day tàlli bu ñu sottee ndox ci digg bi lii day jàll fii lii jàll fi du demee benn boor mukk kon rukoo yombul waaw appareil bi tax waaye kon dinaa misaal nu ñuy rukoo day tàlli ñareet sa gannaaw gi doox doox goo xam ne bu ñu sotti woon ndox day dem ca looso ñëw ci gannaawaat demee bor kon yenn ruko yi baaxul ruko yi booy yu ruko sëgg ba xaw a laal sa óom yi ak xaw a teen ba ëpp loolu fiq xamu ko ruko farata la siggee ci ruko farata la dégg nga ci ban jëbi xam nga su jot jëla bakkan ñaari teng ñaari bëti óom cati tànk loolu mooy su jot waaye jëbee farata mooy farata jëbi mënta ñàkk mooy farata bu ñu sujjóot jëbi moo tax ñu wax siggee ci sujjóot farata la asalaamu aleykum wax gi farata la moo tax danaa dëppaat ci yéene ji sax boo demee ci borom xale mu ngi koy jàngale mu fan yu salaata bayna hamsati wara wala tuqadim wala tuaqira tabtul wal xulf fa bil yasiri danaa dëpp leeral waaye assalaamu aleykum wax gi farata la moo tax julli baa gën a salaamaaleykum julli nga yàqu na assalaamu aleykum ngay wax bi nga koy wax dangay toog soo ko boole woon jóg julli gi yàqu na ndax wax gi faratala toogaay bi faratala ndejoor ndeyjoor bi ngay ndeyjooru nii soo ndejoor nga neel la yëkkati nga yëkkati sa baat ca kaw sunna la kon seulement lim kumbu sa bari na te xoolal taayaa ko jiitu taaya ba sunna la jotaayu taay ba sunna la waaye ba nga ne ah dem sëlmal rek la farata commencé ba ca kum moo tax julli lu yéeme la kon sëlmal farata la jotaayu sëlmal farata fukk ak ñett ñu noonu fukk ak ñeent boo ca boolee yéene raw ci ilimaan muy fukk ponk ñeent am na ñu ne sax toftale farata yi sax am ñu ko def farata am na ñu ko def sunna am na ñu ko def farata moo tax fukk juróom fukk juróom benn am ci bu loolu jàllee eh, yéene julli loolu moo gën a compliqué waaw fanu salaata bay na xam te wara diggante allah ba ci akbar nga yéene foofu nañu fi yéene moo tax yéene du aw làmmiñ naan xol la ay fas naa yéene julli tisbaar tey ci samedi ji ñeenti rakka yàlla na ma ko nungul loolu du fiq waaw ko nag fasal sa xol ndax li tax nga xam ne du làmmiñ ab xol la soo doon julli gee ne fas naa yéene julli suba wala tisbaar ne allahu akbar kabar nga mënoon too dëpp te pourtant julli gi wér na ndax xol bi géey moo ci nekk kon yéene xol la waaye doo aw lammiñ diggante allah ba ca akabate foofu nga yéene ñetti yéene la booboo baax waaw moo gën am na beneen bu baax yéen yoo xam da ngaa rek kàbbar mu taqaloo yéene rek daal di mu taqaloo wér na xam nga ñetteel bi mooy lan kàbbar sa ko yéene julli gi waaw tabtul wal xulf fa bil yasiri xulf fa bil yasiri li muy tegtal mooy yéene ji dafa jiitu kabar am da nga yéene kabar mais yasir mooy lu néew diggante bu néew diggante bu bu néewee wér na bu guddee rek sa julli yàqu sa julli yàqu mu ngi mel ni nodd xam nga sunna la li xam sunna la xam nga nodd moo gën a rëy gën a bari coow mais li xam gën a foor ci fiq ñu ne lu tax mu gën a foor jool màkk ne li moo gën a jege julli moo tax moo gën a foor nodd gis nga hmm. euh, ki dabe ci julli lu mu dabe dabe ak lu mu yàkkamti yàkkamti yéene boobu noonu la ko war a joxe moom itam téere bi foofu dinaa fi ñëw noonu la koy joxe waaye ubbi nga bunt sax dabe julli lu garaaw la léegoo-léeg man ma gis koy dabe julli dugg ci sàppe yi wala mu kabar kabar armal mu ànd ak gaa yi ñu sëgg mu sëgg ñu toog mu toog yëngal baaraam mu yëngal baaraam ñu jóg taxaw mu kabar kabar armal ma waa li mu doon julli ko kabar lu mu tudd fiq li mu jàngale mooy ci la ñu njol boo fekkee gars yi julli ñuy julli foo leen fekk kabaral ànd ñoom ñu ne ko foo leen fekk rek roko sujjóot taxaw taaya kabar ànd ñoom ñu ne njol màkk nooy xamee ne am nga rakka mu ne boo leen fekkee ñu taxaw nga kabar te sëggaguñu nga yéene julli yéene roo ci iliman ba kabar ànd ak ñoom ànd ñoom sëggaru ko am nga rakka boobu mu ne nag léegi soo fekkoon jàpp seeni óom nga kabar kabaru armal rot jàpp ci óom ya te siggee guñu am nga rakka boobu boo noonu tamit fekk ñu siggi nag rakka ba raw na la des na beneen benn rukoo boo ko amee ci julli am nga rakka lu gaar iliman da lay gaar bu iliman amee baada nga baada xabla nga baada mooy iliman bu julli bu ëppee sa julli ëpp na donte fekke woo ko par exemple iliman di julli premier rakka la juum te quatrième rakka nga fekke xam nga njuumte li fekku mais am nga benn rakka da lay concerné xoolal bu iliman du sujjooti après julli gi da ngay sujjooti bu sujjooti avant nga sujjooti avant waaye foofu wi laan ma beneen laaj de waaw ki ne ci ginnaaw iliman di julli heureusement amul rakka daa ñëw rek kàbbar gaa yi toog taay mu toog taay gaa yi sëlmal xam nga amu ci rakka bu ñu xablaa waru ko bu ñu baax daa waru ko bu ñu doon xabla mu ànd ñoom ci xabla bi te mu tey ko julli si julleem yàqu na beneen bi mooy foofu ci sew sew yi mën nga ànd ak ilimaan mu am baada baada moo julli góob par exemple mu dem ba ci deuxième rakam war a toog saa mu ne bëri jóg xam nga fiq dafay jàngale foofu ne su jógee bu ko neexee dikkaat toog taay bu ko neexee continuer ñaar yëpp mënu na fiq ne waaye nag bu continuer moo gën moo gën ñu ne lu tax ñu ne lëm jëm farata la te lii mu bàyyi sunna la ku sa baay woow sa rakk wala koy wuyu jeex na kon la nga jëm farata la te mooy taxawaay beeg toogaay taay sunna la continue moo gën moo tax feq de tama daana continue léegi nag kii ànd ak di julli am moom baada moo julli gu ëpp bu ilimaan sëlmalee bay baada na continue julleem bu julleem jeexee ba mu sëlmal mu soog a baada beneen bi mooy ki nga xam ne da am xabla ci imaam mooy lan imam day julli julli gi manqué mu war a sujjóot nga ànd ak moom saa bu imam di sujjóot xabla àndal ak moom sujjóot xabla am nga ci ilimaan xabla mu sëlmal ngay fay pareegoo beneen xabla gaar la fa ñaari njuumte yi benn la julli ilimaan manqué na mu am xabla ngay fay far xabla gaar la xam nga nooy defa sa benn xabla ngay jël mu remplace xabla yëpp mu mel ni ci fiq كام فوكي سانغاي فرات موزانغا بن سانغاي دايناكو جورومي سانغاي بن دايناكو كذلك كي ام خبلة سي ايمان ام خبلة سي بوبوم داي جيل بن خبلام بي مو رامبلاس نياري خبلة كي ام خبلة سي ايمان خبلة كو باري باري دي فاي خبلة غارات كو امانا نياري خبلة با سي ايمان اك بي ييب داكاي سجود انا يا ايمان ام غا خبلة غا نك موم سجود كو غا باري دي فاي فار بعد غار لا نوي ديف داكاي سجود بعد am nga ñaari sujud am nga imam baada mu pare ngay fay fat beneen baada gaar la benn baada ngay jël kon boo amee imam xabla àndal ak moom xabla soo paree di fay xabla gaar la amaan nga beneen xabla soo paree di fay baada gaar la amaan nga baada am nga ak imam baada musulmal di baada nga continuer fay far xabla gaar la xabla ngay jël bàyyi baada bu la beneen baada gaaree benn baada nga am. waaw oustaz eh, nga baal ma sëriñ bi gis nga yooyu ngay wax xabla yeeg baada yi sama mbokk xale yi nekk Dakar ñoom duñ xam loolu. waaw baax na mooy après sëlmal xam la mooy avant ma leeral mu gën a leer par exemple su deuxième rakka war nga taaye nga jóori taaye woo xam nga julli gi manqué na boo demee ba julli gi waaj jeex ba taaye ba war a sëlmal da sa sujjóot si gi toog su sujjóot sàbbaal siggi toog taaye waat sëlmal loolu mooy xam la xam mooy avant xam nga lu koy waral julli gi manqué bu dee baax na du noonu. baax xam nga mooy lan julli gu ëpp julli timis ba sa ñetteelu raka taaya ba pare ne ñokki jóg taxaw sa xel yedd la wala gaa yi ne subhanallah nga xam ne yaa ngi ci quatrième nga toog nga toog rek sëlmul amu toog yàggaat ndax boo yàggaatee day julli gi parce que toog bi am na pare soo ko baamuwaatee te tey ko da nga da nga yàqu da toog rek daal di sëlmul ci saasi am nga baada salaam xam lu tax jóg bi nga jóg julli gi dafa kon julli gi mooy baada waxuñu ëpp ngëneel waaye ñu ëpp sunna wala ëpp farata luy loolu wàññi du wàññi ngëneel de wàññi sunna wala farata loolu nag lu xaw a doy waar laa bëgg a leeral wàññi sunna mooy lan jullit gee dañ koy yelu non astafurlah dañ koy biral yow nga yelu ko wàññi nga foog nga sujjóotal ko te sunna nga wàññi tisbaar dañ koy yelu nga biral ko sunna nga yokk da nga koy sujjóotal kon sunna boo ko yokkee wala nga wàññiku lii mooy àtt bi sunna sax am nay xaaj sunu mu akkada siinaani chiinaani kasa jimaani taani addi sunnani amaani juróom ñetti sunna boo ci bàyyi damay lim juróom ñetti pare ko nag juróom ñetti sunna boo ci bàyyi rek sujjóot war juróom ñetti yooyu ma génne waat ci ñaar yoo xam ne moom ñaari boo ko juumee ñaari yoon loolu sujjóot di war fi nga war a biiral wax ca kaw soo waxee ci suuf su jot war na nga war a waxee ci suuf nga wax ca kaw su jot war war a jàng saar bàyyi ko su jot war na toogaayu taaye boo ko bàyyi muy bu njëkk muy bu ñaareel su jot war moo tax mu ne ni sii naa ni bu njëkk bu mujj hmm? saar bi ngay jàng ginnaaw faatiha ak foo war a yeloo muy benn siin bi jiimaani mooy wax ca kaw nga bàyyi ko julus bàyyi toogaay taay yii boo ci bàyyi su jot dalay waaye lu mel ni sami Allaahu liman hamidahu huit le woon dañ ko ciy génne allahu akbar bu bokkut ak kabar armal dañ ko ciy génne bépp allahu akbar boo dégg ci jullit bokkut ak kabar armal soo ca bàyyee ñaar su jot war na sami Allaahu liman hamidahu boo ci bàyyee ñaar su jot war na moom su moom sunay ñaar ñaar la àggul ci ñett bu dul yii nag su boo mën dégg ci àdduna ci julli te du yii ñett nga ciy bàyyi su jot sug la war li mooy boo amee xabla salaam def ko xabla wér na boo ko soppee baax da wér na boo amee baax da def ko baax da wér na maanaam boo amee sujjóot avant ngay sëlmal nga def ko avant ngay sëlmal wér na bu la neexee bàyyi ba sëlmal sujjóot ko wér na am nga sujjóot pour boo sëlmalee nga sëlmal sa ko def wér na soo ko jiiteel def ko avant ngay sëlmal wér na fiq maye na am xabla def baax da am baax da def ko xabla fiq maye na lépp yépp te boo demoon ci islaful masaib day gën a ñàng gën a métti xam nga Malik rahimahullah wa xafaral jami dane boo julli boo wàññee xabla yokk baada boolee yokk ak wàññi xabla saafi yi ñëw wuuteeg moom tamaman xam nga lu mu jàngale mu ne boo yokkee xabla boo wàññee baada contraire Malik Malik dane boo yokkee baada wàññi xabla Shaafi ne déedéet boo yokkee xam la boo wàññee baada Ahmad ibnu Hanbal li moom wul noonu boo yokkee xam la soo wàññee xam la Abu Hanifa rahimahullah wa xafara jami mu ne gisewul noonu njool makka njuum teen bi njëkk ci juli baada la ko su moo ta mu ne boo yokkee baada soo wàññee baada wér na lépp mu ngi bàyyi ko sang bi sallallahu alayhi nan dem wilanti wi nan dem nan ñuy dem nga dugg minicar man ma dugg sama turandoo Ndiaga Ndiaye ke dugg cette place bu ñu àggee teewoon lan moo ñu xamal li nga dugg loo dugg ñu àgg ci heure rek jeex ñu àgg ci heure rek mu mel ni kon dabe julli lu jar a bàyyi xel la dabe julli lu jar xel la léegoo léegi ko dabe julli ñu sëlmal rek mu sëlmal kaay ma wax la fiq bu doy waar xam nga ci Malik Shafi am nañu wuti boo doon dabe julli ci Malik julli timis ilimaan rawele benn rakka bu sëlmalee bu sëlmalee wala mu rawee ñaar rakka day wutal saafi xam day wutal saafi bokku nuñ koy jàng ak nuñ koy doxale Malik fi ne boo doon julli timis si ñu rawele sa rakka mujj dangay ngay jàng fatiha ca kaw aku saar te da koy biral mais bu dee saafi du noonu da ngay jóg taxaw jàng fatiha dong roko continuer te da yelu te day wéet te xool ñoom ni ñu wute xam nga lu tax ñool màkk ne ku ñu raw ci julli fa atim fa atimi salaata am fu fu mu ne fardi salaata am fu mu ne da màkk làkk ne bu la rawee ci julli mottalil julli ko saafi day mottali timis rakam bu njëkk loolu jàng di fàtte da nga koy yelu mottali mais est ce que may nañ jullit bi mu pratiquer jaxase école yi imam Malik imam Abou Khalifa ak ñooñu wala dañ koo may rek mu tànn ci benn wala am na droit jaxase circonstance bu nekk mu xool la ko ci xelam may mu def ko. waaw borom xam-xam may nañ ko. anta masaba ala masahibin kasira borom fa xam-xam may nañ ko mu muy jëfandikoo masab yi maam Samoon Fouti rahimahullah bind na ko ci Rimah cadre yi mën nañu sukkandiku ci masab yi di ko jëfandikoo. waaw waaw très bien. te daw ñu daw daw ñu diis waaye ku ku yema may amul xam-xam masa bi mën naa diis mu daw làqatu jëfale bu be loolu lañuy ñuy bañ waaye bu la fa làqatu yóbbul day wér léegi nag Malick moom mu ngi jëfandikoo buñ la rawee ci julli fox bi na ko fay li nga fay ni ko imaam ni ko imaam julli woon nga koy nga koy julli fu mu biree nga bir fu mu nga yàlla ma joxe mu gën a leer timis da nga ci am benn rakkaar nga ci am imam ne asalaamaaleykum bu dee ci malikiya da nga jóg taxaw jàng Faatiha ak saar biral ko toog taaya jógaat taxaw andi Faatiha ak saar biral ko toogaat taaya sëlmal mais bu dee Shaafi du noonu benn rakka nga ci ilimaan mu taaya sëlmal jógal taxaw jàng Faatiha ak saar roko taaya sa troisième rakka Faatiha doo ngay jàng te da ko yenu ko defee loolu ixtilaaf la seen biir te manqué wu lépp a njool màkk dane fay leen fiiw ne mottali leen moo tax ñoom seen digg-digg dafa foor ñun ay fay ki ay mottali ñun xamewuñ ko dañuy namaat namaxi rek moo tax su julli xaw a doy waar waaye kuy fayati julli nga bàyyi xel li ngay fayee julli kuy dabe julli nga bàyyi xel kuy yéene julli ngay ilimaan ngay ka ca gën ginaaw ilimaan yéene fasal yooyu moo wax ñu bàyyi ko xel am na solo lool lool ci julli bu ko defee julli eh, bëgg nañu ki koy def mu laab sol yére yu laab ñu ko xaami ak mahmuul da ngay laab sa yaram sa yére day laab place bi ngay jaamoo yàlla day laab waaye nag foofu nag milaan am na taxaw yére yi bu laabul yaram bi laabul wala place bi fenn ci laabul wala ñoom yëpp te xamoo ko su julli wér xam nga ko waaye amoo ci pexe amoo leen loo ko dindee su julli wér beneen mooy boo julli bëgg nañ mu muur awraam moo tax jigéen bu doon julli ay mbaggam di feeñ awra yu yu noonu de def na lu sib ne waaye julleem feeñ julleem wér na de jigéen yu bari def na ñaaw lu ñu sib waaye julleem wér góor it bu soloon tey benn kilo benn ma xam nga jumax bëti moom muurul julleem wér na waaye def na lu ñu sib seen julli wér na kon dañoo bëgg booy julli nga sol yére yu fatt bu mu yaraax na jot te bu mu buubu bu mu gàtt yuy yoram te bu mu seere waaye ki amul yéere bu julee dana wér fiq dafa jàngale ilimaan solu dara gaa yi muy jiite soluñ dara amul ne ci kanam dañuy dañuy sàppar ilimaan ni ci digg bi boobaa dañuy gëm xam nga fiq dafa sib nga julli gëmm waaye su boobaa xoolal dañ naan da nga gëm ilimaan day gëm gaa yi gëm xam nga lu bi ngay julli boo gisee sa awra sa julli yàqu na boo gisee awra ilimaan sa julli yàqu na boo gisee awra kenn sa julli yàqul moo tax ci fiq dañuy sipp gëmm sib nañ kuy teen ci asamaan si comme ni gaa yi def ci xool fiq boo kàbbaree xoolal fi ngay sujjóot boo ba ngay sëlmal waaye boo dee ku solu yére na gëmm solu yére ilimaanam solu yére na gëmm xam nga julli ñàng na de mbokk yi lii mooy atte julli su euh, ma laaj la benn ñaar rek ñaari question yoo xam ne bëgg naa nga leer xëy na sa bokkul ci objectif bi hmm. mooy ki nga xam ne dafay julli te mokkulul xunut mu jàng waxtu suba ba mu jeex baaka bu mujj bi te dugalu ko kooku lan la lan la ko lislaam di teg. jërëjëf. bul fàtte abonné bul fàtte bës kolos bi. mooy tax ngeen mën di jot suñuy vidéo en temps réel. Wilane TV la voix des sages des sages.